asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare murit yëpp ci màggal yi ak jullit ñi di ñaan ñu def ko ci jàmm te dëppoo ji ak di suñ boroom ak ngërëmul sëriñ bi li ma bëggoon wax nag mooy ci mbiru Aida Diallo ak niñ ci doxale daal man nag dama xaw a wuuteeg ñoom xalaat ndax dama jàpp ne eh, nit ki nu mu mën a mel rek dañ ko war a jéem a jubbante ak jéem koo defar waaye jàpp naa ne nit ki lu ah, nu mu mën a mel waruñu ko génne wala ñu koy toroxal ak di ko def yenn yi daal ndax loolu rafetul ci imaasu lislaam rafetul ci image su yoonu murid rafetul ci image su réew mi rawatina mu nekk jigéen donte ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi jox loolu ñu koy saytu it xëy na lu dañoo xeer ci lu baax xëy na ak fiir guñ fiir ci sëñ bi moo tax ñuy doxale noonu waaye jàpp naa ne waroon nañ cee gën a xalaat ci yenn décision yi buñ koy jël ndax am na yoo xam ne day gën a yàq mais du du defar daal defarul te it day li ñu saafara it am na noo xam ne bu ñu ko ko doxalee rek du du saafara ndax euh, jàpp naa ne Aida hmm, bëgg na lu baax xëy na dafa xamul ndax jàpp naa ne li muy def ci màggal gi bu fekkoon bëggul lu baax du ko def ndax alal ju noonu ku koy def te bu ko neexoon jëmale ko feneen kon mën nañoo jàpp ne bëgg na lu baax xëy na dafa xamul léegi nag ku xamul dañ ko war a xamal mais waruñu ko toroxal ak di ko di ko dàq ndax jàpp naa ne murid yi bu fekkoon liñ bëgg ci seen bopp wala liñ bëgg ci yàlla mën nañ koo amee ci seen kër bàyyi duñ ñëw ci Sëñ Tuubaa kon nag buñ ñëwee ci Sëñ Tuubaa jikko yuñ mën a indaale rek dañ ko war a supporter ak jéem leen a fexe nuñ leen defare waaye dàq leen wala di leen toroxal moom loolu jàpp ma ne lu rafet la te ñi ko def it xëy na mm, maanaam dañoo xër ci lu baax ak ak fiir ci sëñ bi rek moo tax waaye li may conseillé mooy boo liggéey décision yu mel ni bu ñu koy jël ñu ci xalaat mm, teg ko ci xam-xam te bañ topp seen xol ak lenn ci waxi nit ñi rek ndax jàpp naa ni ndax man xawma ay da sax luñ koy luñ koy reproché ma ko daal mais dégg naa ñu wax ni sëñ bi da ko wax pour mu topp Saliou Thioune mais jàpp naa ne loolu sëñ bi dugg ko wax ndax lislaam du du du forcé kenn la ikraha fi din bu dee topp Saliou Thioune daa war a xool Saliou Thioune ba mu doy ko mu topp ko mais kenn waru ko cee force te sëñ Muntaxa boroom xam-xam la boo xam ne yaakaar naa loolu du ko du ko du ko wax liñ ko mën a wax rek mooy bu fekkee moo Saliou Thioune dañoo jubóowul te sëñ bi mooy seen kilifa moom war na leen woo ñoom ñaar ñu toog mu jubóole leen parce que ay mbokki jullit lañ mais nag toppal Saliou Thioune moom loolu njortuma ne sëñ Mountakha dina ko parce que l'islam du forcer kenn du forcer kenn sax ngir mu dugg ci l'islam moom wala nag di la forcer ni la toppal diw loolu sëñ Mountakha xam-xamu wees na ko te yaakaaroon dina ko def leneen li ma gis ñu koy rapproché it mooy dañuy wax ni day am ay góor yu ñëw di jébbalu ci moom mais man loolu d'accord góor moom euh, pour nga loolu pour nga défendre ko dina jafe ci lislaam góor guy dem di jébbalu ci jigéen di jaayante ak jigéen loolu mii nañu ko ci lislaam waaye loolu man li ma jàpp mooy sëriñ si ñoo war ñoom ñoo échec dal parce que euh, li ñu war a def bu ñu ko defoon loolu du am parce que sëñ Touba jàngal nit ñi ak yar leen moo ko fi indi woon léegi nag faay bi nga xam ne moom la kilifa yi am ba ay góor di leen fi bàyyi di dem di jébbalu ji ay jigéen loolu lañ war a xool lan moo ko waral ñu réparé ko mais waruñu koo sippi ayda ak donte loolu kenn mënu koo lay waaye jàpp naa ne waruñu koo sippi daal ndax defu ci dara ñoom ñoo échec te dañoo war a xool yan faay la am ñu repare ko te jàpp naa ne faay bi ñu amin mooy euh, ci wàllum xam-xam ndax yoonu murit dañuy tabax ay daara dañuy tabax ay juma di di tabax ay ay ay ak yu mel noonu di ci def ay milliards waaye li ñu waroon a jiital mooy tabax ay école ak ay daara loolu moo waroon a jiitu ba pare léegi nag comme lii xës na ba am lor lor bu amee dañoo war a xool buñ mënta dindi lor ji yëpp it ñu xool nuñ ko wàññee waaye jàpp naa ne waruñu jee sotti pétrole wala essence te li li ñuy def nii day gën a yàq mais mënta mënta defar dara ndax àdduna bi dafa toll foo xam ni boo génnee nit dàq ko it fam toog lay toog yorub téléphone am sax di def la mu daan def fa ko dàq ñam ko doon woon di ko gis te doo ci mën dara kon loolu yaakaar naa amul benn sens li ñu war a def mooy àdduna boo bëggee taxawal dara ci fi mu ne nii nii da ngay fexe teg système bu dëgër ci wàllu éducation boo xam ne lu ñëw day dugg ci sa biir système sa système wann ko waaye yow sa système dara du ko mën a wann comme par exemple république yi tubaab yi teg nga xam ne daanaka ay tappale la du dara mais gis nga niñ ko organiser teg ko ba nga xam ni l'islam sax fexe nañ ba république wann na ko nga xam ne boo toogoon fii ne naan dañoo war a def àtte woo ci lislaam sax nit ñi dañuy jàpp ne da ngaa dof léegi nag ñoom noonu ñu réussiré loolu lislaam moo ci gënoon a jekk moo tax dañoo war a teg système bu dëgër éducation fexe yar nit ñi ci yarub Sëñ Tuubaa li mu doon jàngale ba nga xam ni dara du leen mën a fëgg moo gën di leen dóor wala di leen génne wala di leen toroxal loolu amul benn njëriñ ndax boo leen génne it moom amul benn njëriñ ndax lañ fañ mën nañoo nekk fu cetul àdduna bi fañ di def li ñuy def te doo leen mënal dara sa téewut ña taxoon nga leen dàq dañ koy gis di leen ci roy te doo ci mën dara kon li am solo mooy nañ teg système bu dëgër njàngalem sëñ Tuuba fexe ba adapté ko ci nit ñi ba dara du leen mën a fëgg yaakaar naa loolu mooy solution te maa ngi rafetlu it sëñ Muntaxa université bii muy taxawal maa ngi koy rafetlu di ko ci encouragé jàpp naa ne it euh, lu baax la ndax système bi nga xam ne moom laa dégg ñu ñu wax ko muy sëñ Ahmadou Bado yi système bi mu wax lu baax la waaye man damaa jàpp ne ñu ko yemale rek ci université bi dañoo war a fexe ba système boobu ñu tasaare ko ci Touba fexe ba école yi nekk Touba yëpp ñu jox leen système boobu ñu koy jàngale ci Touba fexe it ba tasaare ko ci réew mi ak ci àdduna bi parce que université bi nee nañ dix mille personnes lay jël dix mille personnes boo ko jëlee ci ñi war a jàng Touba wala ci yoonu Mouride te université bi Touba rek moom ko Mouride yëpp ko moom ak jullit ñi loolu daanaka nga tànq ab kopp ndox ci géej lay tolloon léegi nag kon buñ taxawee taxawalee université ba pare nañ taxawale ay école ak ay daara yoo xam ne ku jàngut yow yaa bëggut a jàng waaye ñoom teg nañ condition yoo xam ne ku bëgg a jàng nga jàng. te loolu mooy mission sëñ Tuuba faay yi am yëpp ci yoonu murit coow yi am bur bi yëpp nit ñi ñàkk xam li taxoon a jóg sëñ Tuuba rek moo ko waral te loolu nag essai gu sëriñ si la seen faay la ñoo ko war a réparer te niñ ko mën a réparer rek mooy taxawal ay jàngukaay système éducation boobu ñu encouragé ko taxawal ko fexe ba dëgëral ko tasaaree ko ci àdduna bi yëpp ba képp ku bëgg a jàng mën a jàng jàkk yi ñuy tabax ak jumaa yi baax na mais loolu moo war a jiitu ndax Sëñ Tuubaa loolu moo nekkoon mission kon loolu daal jàpp naa ne moo war a nekk ci lañuy war di xalaat dal ak di ci dox waaye nii ñu ko def man rafetluwuma ko te jàpp naa ne war nañ ko réparer te it yoonu murid war naa weesu fu muy jël ab décision boo xam ne kenn nit rek lay concerné ay dajale boo ko teree mu baas buntu këram wala mu dajale mbooloo mais da ko war a tere ñëpp mais waroo ko seppi moom rek di ko tere parce que loolu injustice la donc yoonu murid war naa weesu loolu <coughs> kon jàpp naa ne daal bu ñuy jël décision yi war nañ ci waxtaan bu baax ba nga xam ne ndax dañoo wax ne digleeg tere dafa am ay sart bokk na ci sart yi mooy li ngay tere bu mu jurul lu ko gën a lu ko gën a lu ko lu ko gën a bon te am na destin am na tere yoo xam ne boo ko teree la muy jur moo gën la muy la muy jur moo gën a bon li nga doon tere <clears throat> kon yooyu yëpp dañ ko war di sóoraale di ci di ci di ci bàyyi xel daal yenn yi nag yu ci bari li koy waral mooy ñu ci bari dañuy xeer ci lu baax wala ñu fiir ci sëñ bi ba noppi xëy na xam-xam bi du demee noonu moo tax yu ci bari léeg-léeg muy muy muy demee noonu waaye war nañoo gën a ubbeeku tuuti daal am ouverture xam ni àdduna yit day dox te yu bari yoo xam ni amoon na léegi mënatu nag ñi nga xam ni it dañuy dañuy li fi may tëje rek mooy da dégg ñi nga xam ne dañuy dañuy wax ni Aida Diallo euh, ñi am na ñoo xam ne am na sëriñ soo xam dañ koy défendre te li tax ñu koy défendre mooy da leen di jox ay nag wala dañoo dañoo soxla xaalis ci moom wala yu mel noonu léegi ñooñu laa bëgg ñu ñu xaw a am ouverture tuuti xam nga nit alxuraan dafa wax ne wala yasaaloon muxtalifin maanaam nit ñi duñ duñ duñ dañ mukk ci di wute yow waroo jàpp ne rek sax xalaat ku ci àndul dañ koo ger walla lam nekk baaxul maanaam liberté bi nga am ba mën a am sa xalaat contre wala nga ànd noonu nga war a mën a maye keneen tamit mu mu mu mu mu mu contre wala mu ànd ci li ngay def waaye jàpp ne ko àndatu ci sama xalaat rek dañ koo ger yow it mën nañoo jàpp ne dañ la ger wala da ngaa soxare kii moo tax ngay ngay wax li kon nañu am ouverture tuuti daal di di diglu nit ñi li ñuy wax ak di teg mbir yi ci xam-xam tamit waaye ñi nga xam ne dañuy dañuy wax ni diw dañ koy génn ci yoonu murit comme Aïda Diallo wala yu mel noonu euh, dama bëgg ñu xam ne rek <clears throat> Sëñ Tuubaa yërmaane yàlla la joo xam ne kenn mënu cee génn kenn yërmaane yàlla kenn du ci daq kenn yërmaane yàlla nit ki moo ci mën a génne boppam mais kenn mënu ko cee génne yàlla yàlla teg na ay conditions yoo xam ni l'islam kenn mënu cee dàq kenn nit ki moo mën a am liberté boppam génn ci mais kenn mënu la cee génn ak nit lu mu mën a def tooñ gu mu mën a def même alxuraan wax na ko nit ki bàkkaar bu mu mën a def même bokkaale sax yàlla da koy jéggal dañoo wax ne bàkkaar yëpp yàlla mën na la koo jéggal ba mu des bokkaale waaye loolu li ñu ci jublu mooy bàkkaar boo mën a def yàlla mën na la koo jégal te doo ko tuub mais bokkaale rek nga mën a def bokkaale moom boo ko tuubul yàlla du ko du la ko jégal moom foog da koy tuub mais beneen bàkkaar bu dul boo ko tuubul yàlla mën na la koo jégal ci coobare boppam mais bokkaale moom foog nga tuub ko ñu door la koo jégal yàlla bàkkaar yëpp lay jégal Sëñ yër ma yërmaane yàlla joo xam ne kenn waru cee dàq kenn nit ki nu mu mën a mel nañ ko jéem a defar jéem koo supporter jéem a xam ne ñun ñii ci suñu bopp am nañ ay manquement yu nekk ci ñun dañuy tooñ yàlla te yàlla da koy xam di ñu sutura te it yonante bi dafa waxoon ne saa yow waxee ne nit ñi alku nañ rek jàppal ne yow yaa leen gën koo jàpp ne yaa gën rek jàppal ne moom moo yow ci ñi yees ci nit ñi nga bokk kon nañuy nañuy nañuy rafetal te di teg mbir yi ci xam-xam daal te bañ a topp suñu xol rek ak di mere nit ak ak en te di di wax ngir yàlla ak di def ngir yàlla loolu daal la bëggoon a wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah